yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax amaat mbégte ak kontaante bu baax ni nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma baaxoon nañ ko ànd ak yéen ci waxtu wu ne ci ndigalu sëriñ Touba bu ne rawati nag fii ci Jumaay Touba rawateeti na ci weeru koru sel wi nga xam ci lañ nekk nii mu ciy faral di def ay waxtaan yu am solo di ci faral di nag di woo ay kuréel yu am solo itam ci dëkk bi buñ ci noppee itam ñu ñëw fii ci Keppaar gi daal di bokkandoo ndogu euh, buñ noppee am na kaddu yoo xamante ni délégation war nañ ko yëkkati tey nag ñu fekkoo ci ak délégation bu am solo muy waa tribunal bu département bu Mbacké euh, ki nga xamoo di procureur moo war a jël kaddu gi euh, maître ki nga xam ne maître ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Euh, ki nga xam mooy président tribunal bi tam ci njàpp ndalam ci saa su nag waxtu ne saa saa su bi amee yitte yu mel noonu mu ànd ceeg ñoom ba mu jeex tàkk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di am mbégte te bu baax di leen dalal fii bu baax a baax am mbégte bu baax euh, maître dañ lay jox kàddu gi am na loo seetlu relation bu am solo la ñëwoon ngeen fi daaw ñëwaat ngeen fi ay yoon yoon ñu ngi ñaan suñu borom ngeen ñëwaat fee yoon yu bëree bëree bëri fekk suñu fi te li nga xam ne moom ngeen bëgg ci dëkk bi ci sas wu rëy nga xam ne moom ngeen yore ngeen mën ko matali incha allah am délégation boo xamante ni ànd ngeen ak ñoom am kaddu yu ngeen bëgg a jot li ginnaaw bi ngeen gisee li nga xam mooy liggéey bu am solo bi daayira bi di def ak itam taxawaay bu a Euh, bisimilah macha allah laa quwwata illaa billah bisimilah kulli ni'matin min allah euh, dañ fi teew tey di santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax euh, yàgg dañ fi teew yàlla dogal na waa teewaat ñu teew fi ñun waa tribunal ñu ma ànd ak président Cheikh ñaa mu nekk président tribunal bu Mbacké boo xam ne bi kenn du ko fi présenté ci kër gi ñoo nekk également maître Omar Diop mu nekk également greffier au niveau également tribunal d'instance de Mbacké fii nag à chaque fois ñu fiy invité dañu fiy ñëw si ba si wàllu weeru koor di di sant bu baax a baax a baax ndax lii nii yaakaar naa ni nit woor ba ngoon nga jox ko benn tàndar ma am na si islam wax te yaakaar naa ñu fiy ndogoo bëri nañ. te loolu sant yàlla te gis nañ tamit daayira bi mu taxaw kilifa bi ginnaaw bu ñu nuyoo également le xalif général des gis nañ daayira bi mu taxaw bu baax a baax a baax la la xalif gis nañ également tamit seen liggéey si biir jumaa bi ndaxte ay lu ëpp junni nit dañ fi ñëw di fi ndogoo si te loolu sant yàlla la ñëw nañ fi daaw ñëw fi daaw jeg ren également teewe nañ ko ñu ngi ñaan yàlla comme ni mu ko waxee léegi ñu yàgg fi teewe euh, di di ko di ko fekkee euh, le tribunal nag à chaque fois ñun xam nañ également suñu liggéey si wàllu dëkk bi président tribunal bu bu bu Mbacké euh, xam nañ liggéeyam procureur également xam nañ liggéeyam biir dëkk bi lépp lu ñuy liggéey également dañ ko teg si wàllu yoon. ak également tamit euh, war ma dëkk bi tamit lu mu laaj ñu si def di sant bu baax a baax a baax. c'est c'est le procureur euh, de Mbacké tribunal d'instance de Mbacké en compagnie avec le président Cheikh Niane qui est au niveau du tribunal d'instance également de Mbacké et maire Diop également qui est euh, c'est une perpétuelle nous sommes nous sommes l'habitude de venir ici à chaque période de mois de Ramadan assister seulement à cette invitation de Daïra Moukhaddamatoul Khidma. nous le remercions prêter les serments du, du marabout, qui divorce. De nous avons également visité, fait une visite également de cette grande mosquée, en reconnaissant l'infirmerie, passant tout simplement par les grandes infrastructures qui, tout simplement, taille à inaugurer également euh, de, la grande mosquée de Touba. De toute façon, ce que nous réunissons également, euh, c'est une euh, œuvre grand texte de, cette daïra qui ne sait tout simplement d'œuvrer dans le bon sens, qui ne sait également merci président merci procureur merci euh, maître ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen taxawaay bu am solo am mbégte bu baax li taxoon ñu woo leen fi gën nañoo gis lu kawe njott loolu di leen gën a loxo bu baax a baax ndax ñun ñëpp ci jaamu yàlla lañ bokk di liggéeyandoolu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba kon war nañ di yéegoo bu baax a baax di leen di talal loxo bu baax saa su ne di ñaan suñu borom nag lépp luñ ci def rek ñu dajatee ngërëm Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatuhu